baabun di ab bunt la fi awqaati salaati ci waxtu yi julli yi wa asmaiha ak seeni tur day wax julli julli gu nekk nam tudd ak julli gu nekk waxtoom wañ ko wañ koy julli amma salaatu suba yi daal julli suba fa hiya moom assalaatu mooy julli ga alwusta ga gën inda ahlil madinati fa waa madina maanaam julli juróom da ci am goo xam ne moo ci gën moo ci ëpp daraja ñu wax ne suñu borom da koo lëm leeralul gan la waaye war madina yi dañ koo jàpp julli suba dafa mel ne bu dee ci addis nag moom julli takkusaan moo ci gën a moo gën a tegtalu waaye war madina moom julli suba lañ ko jàppee waxiye moom nag salaatul fajri mooy julli fajar dañ koy wax julli fajar ndax dañ ko julli bu fajar xaree bu fajar xaree ba leer gi tasaaroo ci lañu koy julli moo tax ñu koy tuddee julli fajar bokkutoo ñaar raaka yi nga njëkk a julli bala ngaa julli suba ñaar raaka yi ñu koy wax ñaar raaka yi fajar moom gannaaw bu julli sunna yi jàllee moo ci gën a màgg moom rax yi batu la waaye àggul nag ci farata ñaar raaka yi ngay bëral te mu faral di am kunuut bu dee ci nun moom lañ jubli ci julli suba bi fa awal waqtihaa njëlbeenu waxtoom in sidaahul fajri muy xaruk fajar almutaridi ngay aji tasaaroo bi diyaa yi ci leer ga fi aqsal mashriqi ci gën jaa sori penku zaahiban muy aji dem minal xibla tàmbalee ci xibla ilaa duburi xiblati ba ci biir xibla wala nga ne digg xibla xataa yartafi ba mu yëkkatiku fa yaxuma tamit matale al ufuqa gox ba suba mu lay xam ne julli suba jot na mooy bu fekkee ne leer gi fenke na ci fi jant bi nar a bawoo xam nga fi ñu toll leeru fajar gi jant bi ñëw rek ci la bàyyi ko jant bi waaj ñëw rek moom leeram tàmbalee ñëw kon leer googu nag bu bu fekkee nga seen ko muy tasaaroo tasaaroo ba la wër ci asamaan mel ne xubba ci kaw koy bëtiku leer gi tasaaroo ci rek ba matale gox bi yépp rek kon suba ba suba jot na foofu la muxtaaram tàmbalee wa aaxirul waqti mujj waxtu wa al isfaaru mooy set ga al bayinu ngay aji biir allësi ga nga xam ne isa sallama ndem salmal na min xaa ca moom ba daa feeñ xaaju bu samsi ci atlu jant bi maanaam julli gu ne day am muxtaar ak daroor yi ci fiqhu malik muxtaaram suba mi ngi tàmbalee noonu xajar noonu fajar xare ba leer gi tasaaroo la ci dalee nag ba bët set ba bu nit dee ñëw boo xoolee kanam xàmmee ko fekkee muru ko nga xam ne kii diw la foofu la muxtaar mayam daroor yi ba tàmbalee foofu nag ba catu jant bi génn catu jant bi génnee rek loolu mooy daroor yi ba yaari waxtoom yépp jeex na wamaa la nga xam ne bay na haday ni nekk na diggante yi la yaar waxtu waxtu la waasixun way aji yaatu wa afdalu zalika waaye ngën ji loolu awaluhu mooy njëlbeenam nga leen boo ko defee day mel ni waxtu suba yaatu na waaye nag xamal ne julli ci njëlbeen waxtu boo ko defee da nga am tuyaaba joo xam ne boo julliwu ci njëlbeen nga doo ko am kon teel ko julli ci ba mu door a jot moo gën xaw ko yéex a julli boo ko yéexee julli waaye génn woo ko rek muxtaar bi nag moom doo ci am bàkkaar waaye soo ko yéexee ba muxtaar bi jàll nag moom te amoo woon ngànt ni ki nelaw wala fàtte su boobaa da nga am bàkkaar bu mag a mag waaw nelaw fàtte ñu ngi bokk ci ngànt yi soo fàttee julli ba waxtu wa raw wala nga nelaw ba waxtu wa raw waaye du ci sa coobare lépp moom nelaw yi dogalu yàlla def nga la nga mën ci yow julli ci waxtu waaye gannaaw yàlla dogal loola loola moom doo ci am bàkkaar wa waxtu zuhri waxtu tisbaar ida zalat mooy ndem rëcc na asamsu jant bi an kabiti sama yi bàyyi ko ci digg asamaan wa axasati tàmbali ak dillu takkandeer ba fi siyaadati ci dolliku tisbaar nee na waxtoom mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee moom doo ci am bakkaar waxtu zuhri waxtu tisbaar ida zalat mooy ndem rëcc na asamsu jant bi an kabidi samaay bàyyi ko ci digg asamaan wa axasati tàmbali ak dillu takkandeer ba fi siyaadati ci dolliku tisbaar nee na waxtoom mi ngi tàmbalee ci bu jant bi rëccee bàyyi ko ci digg asamaan rëccu jant bi nag am na tegtal boo koy tegtaloo mooy ker yi nga xam ne ñooy xëy jëm soow dañuy wàññi ko rek di wàññi ko ba yàgg ñu ne tekk su wàññi ko ba jeexee tàkk rek jant bi rëcc na waaye dañuy bàyyi bam def askepaar waaye nag bu dee ci sunu béréb yi nu dëkkee am na jamono yoo xam ne su jant bi rëccee sa takk sa takk ndeer bi du des dara dara day jeex tàkk am na ay weer yoo xam ne nag dillu zawaal mooy ni takk ndeer bi toll bu tisbaar jotee léeg-léeg mu xaw a gudd léeg-léeg mu xaw a gàtt nga xam ne loolu suñ mbàkki bu sa seet na mboolem weer yi weeri at mi weer wu ci nekk boo ca tolloo nu dillu zawaal di toll ak sax tudd weer yi nga xam ne moom boo ca tolloo bu tisbaar jotee ker gi day jeex tàkk-tàkk wal mustaxab bu def na sopp antu axara bu dee fi yeexe ko fi say fi ci jamonoy cooroon mooy jamonoy tàngaay ilaa an yes yi da jëm ci ba yokku dillu kulli shayin takk leerub leen lu ne robu xaxoo kaaram ba bax da dilli ci gannaaw takk leer ba ëllës yi ba nga xam ne zaalat rëcce woon na alayhi ci moom asam su jant bi yàlla bu dee jamonoy tàngaay dañoo bëgg bu tisbaar jotee nga bañ a julli fa saasa xanaa bàyyi ba nga xamee ne takk ndeer ba yokkul na lu toll ni ab kaaram te wañ kontewaale woo ci fa takk ndeer ba toll woon ba tisbaar jot waaye loolu itam wax ji gën a wóor rek mooy muy tàng muy sedd ci am lañ gën a sopp rek mooy bu waxtu ba jotee rek nga julli fa saasa dana ko wax ak wax ak baamuwaat rek waaye jàppale loolu fi saas rek yow jàpp ne saa yu nekk moom muy tàngaay muy seddaay muy mbooloo muy kenn julli ci njëlbeen waxtu rek moo gën waxi la waxees na ne innama yustahabu naka def na sopp dalika loolee fil masajidi ci jàkka ya lu yudrika ngir na jot annaasu nit ñi asalaata julli ga ndewa amoon rajulin daal waaye fi xaasat nafsi yi jagleeg boppam fa awal waxti njëlbeen waxtu wa afdalu ma woon la wàññeel ko jenn wax ngoog daal ñu wax ne sopp gi ñuy sopp bu tisbaar jotee tamuy jamono tàngaay nga yéexe ko aslëf bu dee waa jàkka jee tax tax nit ñi mën a fekk ci julli gi waaye bu dee mel yow dong moom sooy boo rek ba mu jotee fi saas nga dal julli waaye sooy boo julli fa saas jotee yow jàpp ko ba tey rek am nañu dindi loolu sax ne waqi la waxees na ne amaa fi shiddatil xarri ndaal ci taruk tàngaay wa fa afdalu la gën la koy ñeel ko ay yóbbrida mooy mu seral bi xaaj moom wa in kaana ak doonte nekkoon na wax dafoo di moom rek li xawli nabi ngir wax yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne abridoo seral leen bi salaati ci julli ga fa inna shiddatal xarri naka tarog tàngaay wa min fay xi jahannama mi ngi tukkee ca giilu jahannam lakk-lakk maanaam tàng-tàngub jahannam daal maanaam ñee waxoon ne bu dee yow dong moom jërta seral sa yóbba julli fa saasa loolu la delluwaat ne am nañu ne kat bu dee yow dong itam bu xasee tàng rek sa yóbba bàyyi ba mu sedd nga door a julli mooy sa yóbba yéexe ko tuuti ndax li hadis bi yonante bi waxam ne abarido bi salaati fa inna shiddatal xarri min fayhi jahannam na ngeen seral julli gi mooy na ngeen bàyyi ba mu xaw a sedd ngeen door a julli ndax tàngaay woowu mi ngi bàyyi ko ci la tàng-tàngub jahannam wa aaxiril waqti mujjub waxtu wa an yasira mooy ba mujjee dillu kulli shayin takk ndeerub leen lu ne mislahoo di am kemam mooy dib ñaar caam bax da zilli ah kon ko bu wax am ñaari caam say boon rek am kemam ndax mislo yi moo yor am ñaari caam da ngay wax rek wa axil waqti mujj waxtu wa an yasira mooy bu mujjee zill kulli shayin takk ndeerub leen lu ne mislahoo di am kemam bax da zilli nisfi nahaari ci gannaaw takk ndeeru digg wéccëg ba nee na lay xamal ni muxtaaru tisbaar jeex na nag mooy boo demee ba nga xam ne soo nattee takk ndeer bi mu guddee ne borom takk ndeer bi te boolewoo ci na takk ndeer ba toll woon ba tisbaar di jot kon xam nga jamono tisbaar door a jot moom borom takk ndeer bi mooy sut takk ndeer bi bu takk ndeer ba demee ba guddee ni moom nag te nga génne ci na takk ndeer ba toll woon ba tisbaar di jot su boobaa muxtaarum tisbaan foofa la yem takkusaan tàmbalee foofa mooy awal waqtil xasri njëlbeen waxtu takkusaan aaxir waqti zuhri mooy mujj waxtu tisbaar waaw bi bi takk neer guddee ne boroom rek foofu la tisbaar yemoon takkusaan na foofu la muxtaaram bi tàmbalee wa aaxiruhu mu jëm an yasira mooy bu mujjee dillu kulli shayin takk neer leen lu ne mis lay di ab ñaari caam maanaam di ñaari kemam baxda zilli nisfi nahaari ci gannaaw takk leeru diggu bëccëg ba nee na boo bëggee xam muxtaarum takkusaan fu mu yem da ngay seet rek takk leer bi bu demee ba ñaar ca borom nga xam ne génn nga ci na takk leer ba toll woon ba tisbaari jot te teewul la ca yokk rek ñaar ca na borom su boobaa foofu la muxtaarum takkusaan yem waxiila waxees na it ne ida staqbalta ndoom jublu nga asam sa jant bi bi wàcc ko ci sa kanam wa anta te yow qaa'imun aji taxaw nga xayra mu nakki sin doo aji jot ra'saka sa bopp wala mu ta ti in te doo aji sëgal laxoo ñeel bopp bi kon fa in nazarta ndeem xool nga illa samsi jëme ci jant bi bi basari ko ci sab gis faxat daxala kon dugg na rek yem ci al waxtu waxtu wa wa in lam taraxaa ndeem gisoo ko bi basari ko ci sab gis falam ya doxul kon duggut al waxtu waxtu wa wa in nazalat ndeem wàcc na moom jant moom jant bi xan basari ko wali sab gis faxat tamakkana kon dëgër na doxul waxtu dugg waxtu wa tegtal boobu mu joxe neeñ jëtu jàpp daa wax ne am nañu ne doo ne jàkk fi jant bi féete di nga ne jàkk xam ne sëggoo téenoo nga xool rek ni nga mën a taxawee kon nee bu fekkee say bët dafa tolloo jant bi kese mooy say bët dafa tolloo jant bi daa wàcc ba tolloo say bët kese yam ci kon su boobaa yooyu jamono takkusaan day door a jot rek bu fekkee nag léegi jant bee lu tiim nag waaw nga xam ne boo ne jàkk xool jant baa lu tiim say bët ak say bët fi tolloog say bët ñu ne kon waxtu wa duggagut jotul kon bu fekkee nag léegi jant bi moo gën a suufe say bët nga xam ne say bët ko féete kaw nag ñu ne kon jot na bu baax a baax waaye loolu lépp moom mëtt a jàpp boobu tegtal moom dañ koy teg fee rek ndax jant bi moom day wute bu dee jamono sedd ak bu dee jamono tàngaay loolu nag moo tax ndax bu dee jamonoy sedd jant bi day suufe bu dee jamonoy tàngaay jant bi day kawe ci kaw li ko moo tax kon takk ndeer bi ñu waxoon rek moom la ñu sukkandikoo wala si la nga xam ne war safa melal na ko maalikul alimaamu malik rahimahu yàlla na ko yërëm allahu yàlla mooy anal waqta naka waxtu wa fii ci takkusaan maalam tas farra mooy li fekk gëlut asam su jant bi mu ne li maalik wax nag moom ci boo bëggee xam muxtaarum takkusaan jeex na jeexut mooy daa wax ne rek boo demee ba takkusaan yi suuf jot daal ba naaj wi xongatul maanaam ba naaj wi weexatul daal dafa xaw a xong léegi a jant bi jant yi bëgg a xong day soob suuf si suuf si xaw a xong loolu mooy gel su boobaa nag foofu la muxtaarum takkusaan yem
kon bala ngaa génn tisbaar ak takkusaan nga xam bu baax rek ne suñu tuddee xaama ak taxawaay nit ku nekk moom nee nañu bu nattee juróom-ñaari ndëggoom moo tolloo kub taxawaayam ba tey ñeenti xasabam moo tolloo kub taxawaayam kon bu ñu nee na takk leer ba toll woon ba tisbaar bi jot soo ci dollee benn taxawaay foofu la tisbaar yam takkusaan tàmbalee foofu xamal ne kon ci gàttal rek fa takk leer ba toll woon ba tisbaar jotee boo nattee sa ñeenti xasab dolli ci rek loola mooy genn xaama takkusaan daal di jot léegi nag su fekkee bëgg ngaa xam ba xam muxtaarum takkusaan jeex na am déet mën nga koo xàmmee ci dolli ca yeneen ñeenti xasab maanaam bu ko defee rek léegi mu juróom-ñetti xasab daal bu fekkee dolliku ne ci na ker ga toll woon ba tisbaar jotee kon boobu muxtaarum takkusaan itam jeex na ni ko Malik mujje waxe nag muy ñu takk ko ci geluk suuf si bu naaju demee ba xaw a xong nga xam ne weexatut ni weexe woon ci digg bëccëg ba tey loolu tegtal la ci ba ñu ne itam bu dee jamonoy tàngaay dañoo bëgg bu tisbaar jotee ñu bañ a julli fa saasa xanaa dolli ca lu toll ne rubuxul xaama dolli ca lu mu ne kaaru taxawaay kon seetlu nga ne kon biñ nee taxawaay bi war naa toll ci ñeenti xasab ci nit ku ne ñeenti xasabam kon yooyu jamono buñ ca dollee lu tolloog benn xasab rek baax na waaye waxal nañ la nag ne lay wax ji gën a wóor moom mooy saa yu waxtu yu jotee rek mooy tisbaar muy geneen ñu daldi julli moo gën moo xam yow dong nga moo xam ci jàkk la moo xam mbooloo ngay xaar ak julli ko mën doon daal bu jotee fi saas rek ñu julli ko fa saas rek loolu lañ gën a taamu
wa waxtul maghrib waxtu timis waxiyate moom salaatu shahidi mooy jullig aji teew yaani dana jublu ci shahid alxaadira aji teew yaani dana jublu ne anal musaafira nag aji tukki ja laa yaqsuruhaa du ko wàññi wa yusallihaa dana ko julli ka salaatil xaadiri ni ki jullig aji teew fa waqtuhaa waxtoom xurubu samsi mooy soxu jant nee na julli timis moom lees na ko wax salaatu shahid fekk ne baatu shahid bi aji teew lañ ci jublu te lii ma xanaam loolu itam mooy ka nga xam ne mooy tukki day mel ne ku teew ci këram tukkiwut ndax du mën a wàññi timis na muy wàññee takkusaan ak tisbaar ak gee du ko def timis moom kon moo tax ñu koy woowee jullit aji teew mel ne booy tukki itam yàgg ku tukkiwut yéen a yemoo moom nee na waxtu mi ngi tàmbalee bu jant bi soxee jant bi soxee bu wóor daal xam ne timis jot na fa isa tawaarat ndeem suturlu na bil xijaab bi ca kiiraay la kiiraay la wajabat kon sax na wala nga ne war na asalaatu julli wa laatu axaru def ko yeexe bu fekkee jant bi sonn ba làqu la daal ba nga xam boo ko gisatee ëllëg la sonn bu wér daal su boobaa foofu la muxtaaram timis tàmbalee te muxtaaram daa gàtt wara su ko yeexe wala sa laxaa déet di ko ñeel illaa waxtu dara waxtu waahid mu di wenn laatu ak xaroo def ko yeexe xan walis ko waxtoo moom nee na daa gàtt ndax am nañu koy tolloole ci bu jant bi soxee boo ci tegee as niwe soo xam ne laab nodd li xaam julli ñett rakk rek xañ na fi rek muxtaaram dal nay jeex waaye ñu koy takk nag ci bu shafaq fàddoo moo gën a yomb a xam shafaq mooy xonxong yi nga xam ne moo nekk fi jant bi soxe woon bu demee baraaf rek foofu la muxtaarum timis yam gee tàmbalee ko fa
waqtu salaatil xatamati waxtu julli marax waxiyate moom salaatul ishaa yi mooy julli jeexe wa haadal ismu lettre sax aw la mu gën a yey bihaa ci moom ñun des na ko wax salaatul xatamati daañu ko wax salaatul xishaa yi waaye salaatul xishaa yi nag moo gën nga woowee ko ko ndax loolu ko alquran tuddee moom nee na waxtoom xëy boobatu shafaqi mooy fànduk shafaq bu shafaq raafee rek mooy ak fàndoom foofu la muxtaarum gee tàmbalee wa shafaqu shafaq alxumratu mooy xong-xong ba albaqiyatu bi aji des fil maghribi ci sow min baqaaya shuhaahi shamsi ci desiiti ceeñeeri jant bi fa iza lam yabqa ndem desut fil maghribi ci sow sufratun benn gel-gel wala xumratun du jaaginu benn xong-xong faqad wajaba kon war na al waqtu waxtu wa wala yanzaratu deful xool ba deful negganiku ilal bayaad bi jëm ci weex-weex ba fil maghribi ci sow nee na saa yoo xam ne xong-xong bi des fi jant bi soxe woon raaf na ba set wecc rek gisatoo fa dara luy xong mbaale nuru ko xong-xong rek xamal ne kon gee jot na am am na weex-weex buy feeñ foofu nag waaye mëtta néggandiku mëtta xool bu xong-xong gi raafee rek ba dara xongutu fa rek xamal ne gee jot na fa daalika loolee waxtu waxtu la laxaa ñeel gee ilaa tulusi léegi ba ci sulusu guddi ga mi man ca ka nga xam ne yooyu dana namu taqiraha ak yeexeem li soxlin ngir soxla aw xóotarin wala ngant wala mubaadaratu waaye nag gaawe ga bihaa ci moom aw laa moo gën a yee dama wax ne kon foofee xong-xong yi raafe ñu wax ne fa la moxtaarum gee tàmbalee dana dama dem ba nga xam ne boo defoon guddi gi ñetti xaaj benn xaaj bi war a jeex fekk ne boo ko defee ñetti xaaj fa benn xaaj bi njëkk bi war a yem rek foofu la moxtaarum gee yem loolu day wute ci guddi bi nag noom ma ndax day am jamono yoo xam ne guddi day yàgg am jamono yoo xam ne guddi day gàtt waaye ci misaal daal mel na ni fi mu toll waxtu wi ñu nodd timis ci mun moom soriwut 7 heures 43 7 heures 43 nag te nun noo ngi nodd suba 5 heures 35 wala 36 soriwu ko kon diggante boobu boo ko seetloo rek nga wàññi nga wàññi ko ñaata waxtu la def ko ñetti xaaj rek waaw xaaj bi njëkk boobu fu mu yem rek xamal ne kon fa la muxtaarum géeyam daal nga koy xamal ne kon fa la muxtaarum géeyam daan nga koy seete ci guddi gu ne fa jant lay soxee ak fa fajar di fenk rek moom ngay seet def ko ñetti xaaj boo ko defee ñetti xaaj ba xaaj bi jëkk yem rek xamal ne muxtaarum géey foofu la yem ci guddi googa mu mel ne kon muxtaar moom yàgg na mu ne waaye nag nga fexee julli ci njëlbeen waxtu moo gën ndax moo ëpp tuyaaba wala ba asa ayit ay yu akhiraha mu yoxe ko ahlul masajid ñun jàkka yi xalilan tuuti lijtimaahi naas yi ngir taseeg nit ñi dafa wax ni waa jàkka yi moom bu ngee jotee mën nañ koo yeexe tuuti rek ndax waa jàkk ndax nit ñi mën koo fekke si waaye loolu bu ko jàpp wax ji gën a wóor daal mooy jàkk yi ak fele na ci yam tel ko julli ci yam ba mu dara jot daal moo ci tuyaaba moo gën teewlu ni ko waa tuwaay defe ak béréb bi nu nekk nga xam ne waxtu wañ naa def nañ ci tegaat fukki minute mbaa fukki minute ak juróom ko defee wala lu tee mu nekk si njëlbeen nga te dina mën a dana may ku bëgg a bokk si ci mbooloo mi mën cee bokk si loolu baax na wala ko defe def na si àndoo mu nelaw xam la xaaj njëkk gee nee na bu fekkee julli nga timis te gee jotagut daañu sib nga tëdd ci nelaw nga tëdd nelaw dañu bañ rek sa sa nelaw yooyu mën naa far benn yoon waaye nag sib rek lay doon ndax ndegam gee jotagut moom kenn bu la ne doo sañ a nelaw waaye bu gee xasan jot ba noppi nag moom doo sañ a tëdd nelaw te tegoo fa koo xam ne moo la yee bu waxtu nga lay jàll te julli ba mu yee la waaye li mu wax ne nag mooy timis jot na ba nga julli ko ba noppi te geewoo jotagut nga bëgg a tëdd nag di nelaw kooku moom lay wax ne sib rek la waaye bu gee jotoon ci boppam moom nga bëgg a tëdd nelaw faaw nga bàyyi fa ko fa toog koo xam ne bu waxtu na lay jàll raw la muy yàlla wal xadiisa sib nañu waxtaan li xëy na soxlin ñeel lu soxla baax daxaa ci gannaaw gee ba tey gannaaw boo jullee gee ba noppi te amoo ay soxla mel ne di jàng mbaa ngay ganale gan mbaa amoo jën it daal li gën mooy rek nga teel a tëdd teel a yeewu ndax wax nañ ne teel a tëdd teel a yeewu moom boo koy def da ngaa wéru yaram sam xel day neex wax nañ daal njëriñu bare bare waaye dañu bañ rek nga yéex a tëdd yéex a tëdd goo xam ne moom ci yëfi caaxaan rek lay doon yooyu yàq sa jamono mu wéy rek ba noppi nag boo yéexee tëdd far tax laa biddanti naaje yeewu loolu yàq sa jamono rek la kon nag bu fekkee julli nga gee ba noppi te amul dara lay def daal tëdd daal noppalu rek ndax nga teel a yeewu moo wan